Buut ka ko du mara me la fana sok ne jo fam pambe jo koyo ka ko amanu ne ai buut ka ko du mara me la fana ne jo fam pambe jo koyo ka ko amanu ne ai buut ka ko du mara me la fana sok ne jo fam pambe jo koyo ka ko amanu ne ai buut ka ko du mara me la fana sok ne jo fam pambe jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa ñu ngi fii nag ci Dalifort seet si fi xale boo xamante ni caati Dalifort lay wuyoo doon xale boo xamante ne mu ngi def liggéey bu mucc ayib ci làmb simple waaye ku xam promoteur yi xam ni jiney promoteur dafa am. muy idaali ñu ngi nga xamante ne macha allah fépp fu xale nekk dina ko jëli indi ko ci làmb wane ko ci làmb ba Sénégal gépp xam ko tey moo tax ñu seet seeti Thiatou Dalifort ngir waxtaan ak moom ci làmb ji ndax 28 le 29 février bu leen fàtte daal ñu ngi moo woote mbokk yi moo tax ñu seet si xale bi pour waxtaan ak moom Thiat maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar. noo def ak coono. maa ngi si jàmm bu baax a baax. mbaa yaa ngi am jàmm. maa ngi am waaw. Thiatou Dalifort kon yow nekk goo paa ba léegi. non waa Thiat laa léegi de moom. waaw waaw xale laa quoi. mu indi caatu Dalifor. non waa Dalifor xam dama yàgg def mbapat biir Dalifor nii mais man waalo waalo laa gaa yi mooy loolu ko xam nga rek mooy bëri di euh, temps booy ko quoi mooy jël. bëre mbapat bu ñu teg dalifoor rek man maa koy jël mbapat bu ñu teg Dalifor rek man maa koy jël gars yi léegi ñun ma jëlal caatu Dalifor quoi te maa gënoon nekk sama jeune yi booy ko sunu suñu morom yi booy quoi moo tax ñun ma léegi jëlal caatu Dalifor waaw. kañ nga dugg si ci làmb. man làmb bu mu si duggee yàggul de. ay à peu près ñaata at. laa ci dugg de. 2017 waaw waaw. kon 2017 diggante 2017 ba 2020. waaw euh, daanaka mën naa ni def nga. yaa ngi doog a dugg ci sa 4 ans ci làmb. waaw waaw maa ngi doog a dugg sama 4 ans ci làmb waaw. Hmm. maa ngi wane ay preuve leer tamit. waaw waaw lu ci mel ne lutte simple beeg yëpp maa ngi wone ay preuve yu leer. yaa ngi bëri lutte simple. waaw maa ngi bëri lutte simple. ko doon bëree fan. Euh, am na 5 millions yi paase man maa demoon demi-finale ci lese yi man ak Sokh Sokh so waaw mooy bu may def trois appuis noonu jugaat gars jox ko victoire boo maa demoon demi finale quoi waaw barki démb rek maa jël Kaolack tamit nag bi waaw waaw. mooy ba nga fekkanteeg sëñ Basirou xaw ma ban dëkk nga ko. Kumbal Kumbal la woon waaw Kumbal waaw. <laughs> xam nga moom Georges laa ko tuddee Georges demati la boobu day voyager rek fu làmb simple am ñu dem fa waaye tamit loolu baax na ci xale lan moo tax nga jékki-jékki rek xalaat ni war ngaa mën a dugg arène ak lan moo la dugal ci arène. man doomu mbër laa sama papa da doon nekk sama papa mbër la woon quoi. muy sa papa. Euh, Balla Gaye mooy sama papa nag. Balla Gaye. Euh, la nekkoon di bëre ak waalo. Mm. waaw moom fa la nekkoon di bëre quoi. Mm. waaw waaw mooy sama papa quoi mbër la man doomu mbër laa quoi. waaw samay su waa kër ñëpp mbër lañ sax ñëpp tout ñëpp mbër lañu. waaw affaire bi fa laa ko jëlee waaw. nga war a bëree le février. journée bi daal ñu ngi tëgg muy sa premier combat ñu ngi production woo ci. nan ngeen def ba ba ba moom contacté la ak seen xamante yéen ñaar fan la jóge non ñu ngi yàgg nañ seetaan yàgg nañ seetaan ci làmbu yi gis na suñu qualité xam nañu xam xam nañ xam nañ daal lépp si làmb quoi waaw yàgg nañ seetaan tamit waaw yàgg nañ seetaan ci lit simple yeeg fépp waaw ba pare tamit dafa nekkoon suñu benn grand bu baax foor la dëkkoon. waaw xam nga léegi bu mu ko ñëwee bu mu ñëwee wax ma affaire bi après man dama kontaan ci loolu parce que moom suñu grand bu baax la parce que tamit moo ñu yar ci koñ bi fii moom tamit xam nga waaw daf si jàpp bu baax combat bi moom incha allah moom dina mention spéciale moom dina kontaan bu baax a baax waaw parce que waa Dalifort yëpp ñëpp ñëpp ay mobilisé wu ñëw stade waaw waaw waa koñ ba ñëpp waaw ñëpp ay ñëw ñëpp kenn du des. xam nga kim la jox. xam naa ko nii waaw xam naa ko moom. 9000 problème la ma jox waaw après dama. 10 000 de nee na moom bi ñu koy jox 9000 i dafa juum. daa bëggoon jël 10 bi mais comme 9000 bi daa manqué ci yow lay jëlee 9500 bu jàppaatee keneen mu mat 10 000. non man maa koy dolli 10 pro 10 000 man maa koy dolli waat waaw mu nekkaat ci ay problème waaw man maa koy dolli beneen muy 10 000 problème waaw waaw. xam nga ko mos nga ko seetaan mu bëri. seetaan naa ko seetaan naa ko du dara. kañ nga ko seetaan. non am na benn combat bu ma seetaan ak Iba moom gis naa ko muy bëri. Hmm. waaw waaw. mën na xeex. non mun na mun na bëri mun na xeex. waaw champion la waaw mais dafa daj ak ndaanaan tamit waaw ndaanaan bu mag. ñaar ku dàq xeex. man maa ko dàq xeex man sama combat yomb de. ngay bëre de. <laughs> man maa ko dàq xeex yàgg naa euh, bëre ay mbapat ay njaaram lu may xeex ba génn boîte vocale man amul lenn lu may bàyyi bëre beeg lépp waaw man moom ku ma dajal si si mbapat yi moom waaw muy booy fay booy Faye daaw daanoon naa ko adressé ngor. waaw Boy Faye demi final laa ko daan mu toog après mu la ma. waaw man daan ko demi final foofu noonu après arbitre jox ko victoire après ñun ma defal recours après gars yi ñoo ne ma léegi jarul ngay def recours man gars yi xam nañ ma de xam nañ ma bu baax a baax parce que dañuy daje ak man ci xam nañ ma bu a baax waaw. kan ban yan à part Boy Faye yan champion nga dajal ci simple bi di leen gis ci làmb ji fi mu toll nii ndax lim nga sox soxoor léegi lim booy fay da dajeeg naa ak Mamadou Ndiaye. mel na waaw mu daan ma Ibamar dajeeg naa ak Mamadou dajeeg naag tamit kii nii Belende waaw waaw Belende ak yeneen ponkal yëpp dajeeg naag ñoom waaw ponkal yëpp dajeeg naag ñoom. ku ci ku ci jàpp ku ci jàppanteeg caat rek day xam ne caat am na lu ne ci moom. waaw waaw ku ci jàppante rek day xam ne am na lu ci nekk quoi. waaw waaw. combat bi noo koy waajee. combat bi gars yëpp a ngi ciy waaj waa Dalifor. waa Waalo. waa Kër Massar waa Pikine ñëpp ñëpp a koy waaj. barki yàlla combat bi xoolal instant sama waa koñ damay dox sax ñu naan ma combat combat combat yee moo tax combat bi moom damay wane sama bopp dëgg. waaw parce que man champion la foog ma wane sama bopp. ñaata séance ngay entraîner par jour. trois séances laay dóor par jour. ok def la. damay dem géej su ma ñëwee su ma ndekkee ba suur damay demaat saal ngoon ma ñëw contact waaw. waaw trois séances yooyu laay dóor quoi waaw parce que gars yi ma yaakaar quoi suñu waa gàlle dañ ma yaakaar trop te man champion laa gëm naa ne man champion laay doon ci làmb waaw kenn mënu tere lekk dara ci làmb ko champion foo toll ci wàllu mobilisation parce que ku ne xam na ni làmb dafa métti promoteur yi gisatuñu sponsor te mbër yi ci seen i billets li ñuy jaay as néew ci la mën a promoteur bi mën a sukkandiku ba fay la gaa làmb dafa métti mobilisation boobu foo ci toll yow ak waa Dalifort. sama benn grand Balla ak Thierno Fall ak Moussa ñoom ñoo si jàpp bu baax a baax ak Ali ak Gora. instant it waa Jeunes Unis mobilisé nañu waa Dalifort bi yëpp Dalifort képp ku taxaw si Dalifort rek mobilisé waan nañ yëpp. waaw Dalifor moom jour bi jour bi day mel mbër bu mag moo fay génnee parce que man waaw xale laa quoi waaw te neex naa jàppale te gars yi moom mooy loolu quoi parce que gars yi fu nekk lañ may gis si àll bi fu nekk laay ànd ak ñoom tamit xama waaw yaa ma gën a xam daal affaire yi daal Dalifor ñëppay ñëw waa waalo comme ni ma la ko waxee waa Pikine waa ñëppay ñëw waa Ndogal waa Niassène ak waa taal baxale ñëppay ñëw tout ñëppay ñëw instant yi combat bi kay stade bi man maa koy feesal te waaw te man maay neexal làmb waaw su ma ñëwaatee ñëppay ñëw si làmb sponsor yi ñëppay ñëw parce que man damay neexal làmb. caat kon yow mun naa assuré ni boo bëree le vingt neuf incha allahu rabbi le trente sponsor yëpp dugg si waat ci làmb. ñëppay dugg si waat parce que lu lu doon neexal làmb moo instant moo amatul ci làmb. te man maa ko yor. waaw ku gëm sa bopp sëñ Basir. waaw man maa yor loolu noonu. te le vingt neuf ngeen di xam kan mooy caat. waaw caat moom le vingt neuf ngeen koy xam. waaw ñu bàyyi la nga tàggoo rek. waaw waaw maa ngi nuy tamit ñu jàpp ci affaire yi ku mel na Baye Diop ah ak euh, kii ni Awaña maa ngi koy gërëm di sant Thierno Fall di sant sama grand Balla sama grand Balla maa ngi koy sant bu baax a baax daf ci sonn billaahi di sant sama yaay bu baax a baax tamit dafa sonn sama papa tamit dafa teel a génn àdduna xam nga bàyyam ak sama yaay quoi sama yaay kii xam di dañuy kii xam nga mooy indi làmb di ko jëleel ay saako ceeb di ko indil kon tamit moom aw ma fayam quoi maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant waa Dalifor yëpp waa Waalo waa Niassène ñëpp maa ngi leen di sant di sant waa Pikine xam nga di sant tamit waa Caaroy Caaroy fa laa nekk fa laa yoroo quoi waaw ñoom ñëppay ñëw di leen sant bu baax a baax di sant tamit Baye Diop di sant Thier Ali Fall góor a ma kenn Talifor ñëpp maa ngi leen di sant tamit di sant tamit it euh, promoteur bi Idaali parce que dafa lu mu def ni acte bu rafet la fekk ku ku ñëpp di daw daal xam nga waaw lamb métti woon na trop. parce que kuñ ma jox day day delloo avance quoi parce que dañ naan mooy loolu noonu quoi waaw mu ñëw tëgal ma combat jox ma sama benn moroom waaw kon maa ngi koy sant bu baax a baax waaw combat yi moom dina kontaan trop maa ngi sant tamit sukay sukay téer lay nekk euh, Dalifor di sant Ndeye Khady maanaam Thiam di sant sama nijaay Allah Thiaw tamit maa ngi koy sant bu baax ak Aada Thiaw waaw ak Moussa ak Pape Diop ak Mbaalo Ah, ak këndëng benn booy këndëng waaw maa ngi koy sant bu baax a baax tamit gars yi maa ngi leen di sant bu baax njuga bàyyuma kenn laay tug ñëpp laay tug Espagne la nekk ak buuna tamit Espagne bàyyuma kenn ñoom tamit nañ ma gëstu quoi jàppalu jàpp si bu baax a baax parce que ticket yëpp a jeex instant yi bolo gi jeex na waaw bolo gi yëpp a jeex waaw di sant tamit Espagne la nekk maa ngi koy sant bu baax a baax pour mu jàpp si ak Pape Diop tamit Espagne la nekk tamit maa ngi koy wax mu jàppaat ci bu baax a baax waaw caatu Dalifort dégg ngeen li nga xamante ni moom la wax di waajal bisam nag xale la boo xamante ni macha allah bu dugg see ci làmb doo laajte ndax di nga gis mbooloo moo xamante ni mobilisation bu rafet xale bi dina ko def te dina boole waa dalifoor yëpp ñu ñëw ànd ak moom. mbokk yi kon noonu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo du tàqali ko bala la allah ci beneen xew-xewu làmb